Yes,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 mu waxoon ne dama bëgg ñu dekkalaat wala boog ñu fenqewaat gilin yi yeesalaat taali Serigne Touba yi te loolu mooy demalaat sëriñ Touba ci dëkkam ya ñamu defaroon mu ngeen demee loola la muy tudd mooy fenqalewaat gilin yi taal bi gën a tàkkaat mooy ngeen waneel ma liggéeyub sëriñ Touba te wane liggéeyub sëriñ Touba mooy wane lim def ci ay bokkam ak lim def ci jàmbur yi loolu nag ren jii.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 dara duñu bégale nag lu su kan mooy sëñ ba nubbee ak lan moo di jëfam loolu rek moo indi ñoo ngi sant bu baax di jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. déedéet dañoo dem ko waajale waaw moo gën fii dalal la ñu ci turam lañ koy yëkkatee mu jëm ci. Serigne moodu Mbacké si mii nga xam ni moo jiite karawaanu màggal bi ñëw fii Dendey tey te karawaan bi ñëw ci biir liggéeyub Serigne Mouhamadul Bassirou Mbacké moomu Serigne Abdou Khader ak ci biir liggéeyub Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Serigne waaye mu mel ni li waral tànk lépp ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha ci ngeen koy dox ngeen ñëw fii ci Dendey yi ñu di leen dalal jàmm di leen defar rek ahlan wa sahlan muy kàddu yi dalal kàddu yi dalal lañu leen di defal waxtaan wi la ngeen soxla ci Cheikh Ahmadou Ndoumbe Xabaan bu ñu demee ci jumaa ja sëriñ Ousmane Mbacke dana leen ko defal ni ngeen ko bëggee fii ngeen ñëw nag boroom ëtt bi mooy Cheikh Ibrahima Mbacke mooy Cheikh Ahmadou Ndoumbé ci kaw suuf ku bàyyi xel seen ñëw gii la ku ci am yëg-yëg la waaye xat-xat ak ñu ñeewantu ko ci jotaay bi moo tax mu jël lépp teg ko ci loxol jëwriñam di Serigne Cheikh Bintou Mbacké Serigne Cheikh bi ngeen ko waxee ni dañuy ñëw ba nëga amul benn yitte bu dul li fi seeni tànk ngeen am ko ni ngeen ko bëggee loolu moo waral barab bu nekk ak na muy doxe dëkk bii di Dendey sëriñ Ibrahima Mbacké da koo teg ci loxol Serigne Koso Mbacké mii moo yor baat bi moo yore liggéeyu jumaa ji moo yore lépp moo waral comme dendee ngeen di ñëw di xadara Cheikh Ahmadou Ndoumbé Xabaan mu wax sëriñ Kosso na leen dalal ci kàddoom la ñuy wax ci turam la ñuy wax njabootu Cheikh Ahmadou Ndoumbé gépp nag teew nañu sëriñ Abbas Mbacke mi nii mooy imaamu dëkk bi di doomu Cheikh Modou xaban sëriñ Abibu Mbàkke mooy taawub sëriñ ibrahim mi Cheikh Ahmadou Ndoumbé ci kaw suuf mu ngi nii mook sëriñ Ahmed ak mboolem ay rakkam ñoom ñëpp teew nañ sëriñ Amsatu Mbàkke ngi nii ci sama wet ñoom ñëpp dañoo bàyyi lépp luñ jàppoon ngir ñëw jëmmal bis bi sëriñ Cheikh Bintu Mbàkke sëriñ Ahmadou Mbàkke mi ngi nii di rakkam di di taawam moo ki rakkam ñu ngi teew sëriñ Mamor Dendey xalifaam di sëriñ Sam Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér jëwriñam rakkam léppam sa si moom di sëriñ Modou Abdoulahi mi ngi nii teew jóge Touba ngir teewe jotaay bi njabootug sëriñ Abibu Mbacke ñu ngi ñii teew di sëriñ Cheikh Mbacke ak sëriñ Jili Mbacke mboolem kër yi kër Cheikh Mandoumbe yëpp teew nañu waa kër sëriñ xabbaan moom sëriñ Abdou mu ni ma ko waxee sànq muy sëriñ Jili ak sëriñ Cheikh ñu ngi ñii teew ak mboolem kër ma Mandoumbe yëpp kon daal ci tënk njabootu Cheikh Modou Xabaan gépp waaye njabootu Cheikh Modou Mbeg gépp ñoo àndandoo bàyyi lépp luñ jàppoon ñëw teew fi ngir dalal leen ànd ak yéen bis bii nga xamante ni bii ñëw ngeen ci benn pàkk ci pàkki Serigne Touba yi. li nga xam ne nag moom laa ci wax mooy ci kàddu Serigne Koso ñu ngi leen dalal jàmm bu baax. incha allahu waxtaan wi day doon waxtaan woo xam ne dafay ànd ak teg baaraam ndax kilifa mën ngaa wax ci moom lu baax lu yéeme waaye wax ju nekk bu amee firnde dana dimbale ñi koy déglu ngëm nga mën a yomb moo tax dama leen di tënkal rek ma Mandoumbe mii ngeen ñëw di gëstu si mbiram ñun ñëpp xam na ni yoonu murid day bu fekkonte ni am mbaar la dañuy wax ni yéen ci jën yi ko téye mooy jën wii di ak dëggal ak bëgg sëriñ bi ak liggéeyal sëriñ bi ak àddiyal sëriñ bi yéen jën yooyu moo téye yoonu murit yaari jën ya nag gisuñu ku ci nekk ci kanamu Cheikh Ahmadou Ndoumbé te loola fu wér lañ ko teg ay firnde yu wóor la jën woo wii di àddiyal sëriñ Saalihu Mbàkke ci boppam day moo wax ni ku tedd ki di Seexul Xadiim wax na ni Ahmadu Ndimba ma jox kenn joxuma ko njabootu sëriñ Saalihu ñu ngi fi ay jëwriñ ñu ngi fi ñu yàgg fegg ay kàddoom ñu ngi fi toog ñu ngi ñu ngi ci kaw suuf kon day dëppoog li ñu wax ni ab junni mooy ki ko njëkk a jox ko sëriñ Touba Cheikh Moussa Ka bind na ko moo njëkk a fab junniy dërëm booleeg wurus wu naa ngalam teg ci loxol bamba magam mësa sàkkul àdduna kon addiyee moom day teg tegtale ni Cheikh Mandoumbe jafe na lool nga gis ku nekk ca kanamam ci nim doon doxe ci wàllu addiya liggéey bi fanweeri gëléem ak juróom daana bàyyi ko fii ñuy sëf dugub di ko yóbbul ko tedd ki ca sàq ma nekkoon daaru xuddoos ci diggante kër sëriñ Abibu ak kër sëriñ soxna xadi gay na soxna xadi Fatma sàq moom ne daana ko di ba mu fees ak pepp njabootu Serigne Touba daan ko jëfandikoo di ko saafara woo loolu yi taxoon na mu dem ba sëriñ bi defoon ko mu nekk jëwriñu képp kuy tërbiyewu di wut ngërëmul yàlla ci toolu Serigne ba bis mu woo ko mu ñëw mu bind leetar ne ko Ahmadou def naa la jëwriñu képp kuy wut ngërëmul yàlla Cheikh Moussa Ka bind na ko Bamba ko jox mbindum loxoom ne ko sasal ma say moroom jëwriñ nga tool bi yaay boroom yaari baykat metti na kon addiye bi leer na liggéey bi leer na yaar yooyu nag munta am ludul dafa lalu ci kaw ak dëggu aku bëgg kon loolu rek laa leen mën a junjal ci kii ngeen fekk ci Cheikh Ahmadou Ndoumé Xabaan la ca des la ngeen soxla woon lépp nag bu ñu demee ci barab bu mag ba sëriñ Ousmane dana leen ko gën a leeral waaye daal noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla bar jotaay bii bokk ci jotaay yi nga xam ne yi gën a barkeel la jotaay yi sëriñ Touba gërëm te seen liggéey bi ñaq wu ci rot yàlla na leen ci Serigne Touba fay lu kawe seen jot lu manqué nag ci matadik doomu aadama guma gaar akuk manqué akuk doye ak xel mu jaxasoo moonu jàpp ba loola waaye lépp lu ci mat na xam leen ni mi ngi bàyyikoo ci Serigne Kosso Mbacké mii nga xam ni mooy sunu kilifa di kilifa jotaay bi di kilifa dëkk bi sëriñ bi jël liggéey bi lépp teg ci loxoom ci moom la bàyyikoo noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa Modou Xari Mbàkke moom sëñ Mamoor Dende jullit yi bokki taaliba yi noo ngi fii ci pàkk bu tedd muy Dende yi di suufu Cheikh Ahmadou Ndoumbe Xabbaan dalal gan ñu bàyyi ci ku tedd ku màgg muy sunu yaakaar di suñu bunt di sëriñ Tuubaa ci kaw suuf di Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñuy ñaan sunu borom dolli ko fay yàggal te dolli ko ak wér ba yéen yi am ci yoonu murit am ko ci ligg lislaam lépp mu def ko na mu ko bëggee tam ànd koog nun taalibe yi waaye di bëral sunu cant ak sunu ngërëm ci jëwriñam ju mag ji muy sëriñ Cheikh Basiru moom sëriñ Abdou Xaadar ci taxawaay bu rafet nga xam ni mu ngi ko taxaw ci watu ku tedd ki ngir liggéeyal yoon wi waaye di gërëm it sëriñ Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ni it bokk na ci kilifa yi nga xam ni ñooy taxawu liggéey bii nga xam ni moom lañu ñu xëyee tey fii ci dënd yi di ko sant bu baax waaye nag di bëral cant ak ngërëm sëriñ Mouhamadou sëriñ Modou Mbacke si mi nga xam ne ndaw lu mag ndaw la moo ànd ak mbooloo mi délégation bi ñëw fii ngir lan ngir xentu si ku tedd ku mat a xam ku mat bàyyi xel muy Cheikh Ahmadou Bamba Xabbaan kon ci kaddu borom dëkk bi di suñu yaakaar di sëriñ Ibrahima Mbakke muy Cheikh Amadou Ndumbe Xabaan yitteem yépp ba gépp di fexe ba mottali Cheikh Amadou Ndumbe yéeneem ci yoonu murit ci kàddoom googu yi la ñu yëkkati mu jaar ci jëwriñam du mat sëkk di sëriñ Cheikh Bintu Mbakke muy jëwriñam te liggéey bii mu taxawu ko ànd ci ak ñun ñu jël lépp nag teg ci loxol jëwriñam lu tedd ji ñu dénk dëkk bi dénk ko njaboot gi guddi ak bëccëg itam yépp mooy taalibe di sëriñ Kosso Mbakke mu mel ni ci kàddu jëm yu tedd yooyu ak njabootu seex Cheikh Mandumbe gépp noo ngi leen di dalal di leen wax ahlan wa sahlan fii ngeen ñëw nag di kër Cheikh Mandumbe xabaan dañu leen di ubbil rek ci cant googu ak ngërëm loolu yëg nañ ni sax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 ba seen ñëw gii jafe-jafe yi ngeen ci jànkonteel bu ëllëgee loolu mën a saafara mu mel ni kon ci nuyoo boobu sëriñ Ousmane Mbakke mooy ki war a def waxtaanu Cheikh mu Ndumbe Xabaar bu ko defee ba noppi sëriñ Koso Mbakke mii kilifa jotaay bi dana tëj kàddu yi ñaanal mboloo bu ñu fi jigéen nag am na ñaari étape yu ñu war a dem bu njëkk bi mooy fii nga xam ni fi la Cheikh Amadou Ndoumé wàcce ab liggéey muy fii ci dënd yi te Serigne Ibrahima Mbacke mii taaral ko jëmmal ko ba mu doon barabu barkeelu barabu siyaara buñ fi jógee danañ dem saam ci daqaar gi nga xam ni bari na lu fa ñore ñu sëf ko ciy gëléem lu matoon fanweeri gëléem ak juróom daan ko yët ku tedd gi fa mu ko bëggee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 noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare ci turu borom dëkk bi di sëriñ Ibrahima Khoudia Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ndoumbé di leen nuru nuyu ci turu jëwrinam muy sëriñ Cheikh Bintu Mbacké waaye di leen nuyu ci turu jëwrinu liggéey bi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 doolee àggale ay naalam jaan ci jëwrinam ji ki nga xam ne moo yor baatu yoon murid mu Cheikh Mouhamadul Bachir ak sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nga xam ne mooy yor wàllu liggéey bi di ko taxawu waaye sëriñ Mudu Mbacke si mi nga xam ne ci taxawaayam bu rafet ci yittewoo bu mu yittewoo liggéeyu sëriñ Tuubaa bii ñu tekki loxo mu di ko dox doxalin mu rafet ànd kook sëriñ Xaadi Jaxate ak sëriñ Fallou Gala Silla ñoo ngi leen di nuyu ni ko sëriñ Mudu Xari Mbacke waxe mu mel na ñun li ñu jotiloo rek jotali mooy ñu fas yéenee wax ab tënk ci dunduk Cheikh ma numbe xabban mu mel ne ni ñu ko fas yéenee tënke mooy waxtaanu nii lañu bëgg mu tëddee mooy leeral gane ak addunaam ak fan la gane àdduna ak leeral ay way juram waaye leeral ak bokkam digganteem ak Serigne Touba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 moo tax ngeen dégg sëñ Moussa Ka di wax ne ñoo bokki ndey te bokki bàyyi ci wàllu maam ak wàllu baay mu dal di fab mbokk nga jaay jënd ngërëm la wàcc na loolu nag ni mu demee mooy ku ñuy wax sayar soxna bu sa ak ahmad soxna bu sa ñoo bokk ndey ak baay sayar soxna bu sa moo jur Seydou Mati mi jur Cheikh Manoumbe sayar soxna bu sa moo jur maam Asta Waalo mi way juru soxna Jaaratullaahi mi way juru ko tedd ba tey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 sëriñ du dafa laxasaayuwaat jaayuwaat laxasaayuwaat jaayuwaat soññaat taalibe yi ne leen nañu yeesal sunu pas-pas ci sëriñ Touba te dox ànd ak maam Thierno Ibra Faati liggéey bi te ñu xam ne sëriñ tubaa mi ngi fi lu ñu am nañ ko ko yóbbu daal jiitu ci liggéey boobu moo tax sëñ Mouhamadul Bachir di wax ci menenul baaqil xadim di wax ne ba sëriñ tubaa demee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 ak i taxawaayam ci yoonu murit loola bokk na ci li ma ko waxee mooy sanc ay dëkk te sanc dëkk yooyu yépp nag lenn rek moo ci jubluwaay mooy jàngal taalibe yi jàngal njaboot gi ndax fu mu masaa nekk nag dañ xam ne daaray alquran ma nga fa daaray xam-xam ma nga fa ndax moom sëriñ tubaa da ko boole woon ak am na ci ci mag ñoo xam ne ba ñu jébbuloo la ko sëriñ tubaa boole ak ñoom seen yéene jëpp mooy na def ci ñoom xam-xam na leen àggale ci yàlla te xam-xam bala ngay àggale na tàmbalee ci xam-xam yam ci xam-xam kon loolu moo taxoon mu daan sanc ay daara ut ñuy jàng alxuraan ut ñuy jàng xam-xam ut ñoo xam ne tool yi mooy seen liggéey waaye loolu lépp nag bu paree ci Sëriñ Tuubaa la ko jëme ndax li tax ma wax ko mooy Sëriñ Seex Seynabu bindal na Sëriñ Tuubaa ñeent fukki kaamil ak nàngam waaye liggéeyu sëriñ mën nu ci biir ndax ba muy tuut tànk la ko sëriñ ma du jël jox ko benn sëriñub daara ne ko sa yàlla mi ngi ci mu wattu alquran taxaw ci lool wax sëñ seex ne ko ba muy tuut tànk la ne ko boo mokkalee danaa la jox fas te booba fas bu baax bu ñu wax maga ci diggante bu gàtt sëriñ ba sonal ko lool ba mu mokk alquran mu yóbbuwaat ko ci keneen ngir mu jàng bind mu nekk fa mu sonal ko ba mu dem ba mu mën a bind lool ndeketi booba mi ngi am lu mu waajal ndeketi moom liggéey bi mu yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci alxuraan na formé koo xam ne tey na ñëw taxawal ko ci dont ma ngay samp daara ci la sëriñ Seex Magay sëriñ Seex Seynabu di liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba bind ñeent fukki kaamil ak nangam teg ko ci loxol Sëriñ Tuubaa te loolu liggéeyul sëriñ Madu la kon bokk na ci liggéeyam ba tey bi sëriñ bi demee ci géej gi bokk na ci ñi gën a ràññiku ab taxawaay ñi gën a rafet ab taxawaay ci yoon wi bokk na ci ñi gën a jàppale maam Cerno Ibra Faati ci liggéey bi ko sëriñ bi bàyyee fu mu toll di nemmiku murid yi di leen soññi di leen dalal ku ci jaaxle mu dalal la ku dem mu jëli la moo tax sañ Musaa Ka di ko wax naan ko murit bu daw moo lay jëli def ndimbalal gaa ya tële ku yoon wi réer baa nga tële mu naa la yoon bi gàtt na mm-hmm. nim murit bu daw moo lay jëli def nimbalal gaa yi tëli ku yoon wi réer baa nga kale mën naa la yoon wi gàtt na bokk na ci ab liggéey ab liggéeyam sëriñ tubaa daana ko sant ay liggéey yu baree bari daana ko defarloo ay kër bokk na ci kërum daarul man naan keroog ba mu jommee ñi xamul mooy ba mu lakkee moom la sëriñ tubaa joxoon ndigal mu daldi ko yeesal mu daal ko yeesal lal ya yaakaar naa mu sant ko maam Cheikh Ibra borom gaawaan moo tax sëñ mu sëñ Musaa Ka di wax ne Cheikh mu dundumbe Mbàkke def na fay kër ci ndigalal Cheikh Bamba gaayam yee fikkar fii ci Tuubaa nga xam ne barab bu sëñ Tuubaa yitte woon la mu neex ko ba mag ñi bu ñu masaa bëgg lu leen neex dañuy nekk ci wetam di tudd Tuubaa wala bu ñuy wëlbati aw sàkki naan ko jëmal Tuubaa ngir bëgg lu neex sëriñ bi moo njëkk a defal sëriñ Touba ab tabax ciment ak fer ak la aju moo ko njëkk tabaxal Serigne tubaa fii ci Touba ba léegi tabax ba ma nga fa mi ngi ci Daaru Kudduus ci sàq Sàqama ci wetu ma ci biir bayti léegi mooy école ba booba Serigne Touba da ko wax ne ko damaa bëgg nga dem Touba defal fa kërug téere kër goo xam ne sawara du ko mënal dara max du ko mënal dara ndox du ko mënal dara mu xam ne loolu tabax rekk la mën a doon mu def ay pexey boppam di jóg di lijjanti ba tabaxal ko fa foofu nga xam ne moom fa kon daaray kaamil moo ko njëkk defal Serigne loolu dañu xam ne kon ana sëñ mën numee lan moo doonoon taxawaayam ci xam-xam bu ñu xoolee ñi daan sàkku xam-xam seen lañu daan jëfandikoo Serigne Touba moom la ko tegoon ci loxoom mu ànd ko ñam ko àndal taxawuñ ca taxawin mu mat sëkk ba dara manqué kon benn ngoog mi ngi liggéeyal daara ñaaral ba fu mu masaa nekk ma fa samp ay daara ut ñoo xam ña nga fay jàngale alxuraan di fa jàngale xam-xam ñetteel ba Sëriñ Tubaa jamono bi mu soxlaa ay téere te booba téere jafe lool njëgg jafe lool daana ko yónni lu baree bari gànnaar mu dem di ko utali ay téere te booba kenn ku ne xam ne naar yi daawuñu móol ni muy def mooy bu demee ba àgg mooy ut ay këyitam ut daa ut bindukaay jël neexal naari ñu abal ko téere ya mu sotti ko ci loxoom bu tedd ba indil ko Serigne Touba loolu boo demee ci téere bi ma waxoon léegi sëñ Mouhamadou Amine Diop tudd na ko fa wax ne kaana cheikhu yursiluhu ila ardil bayadin yastaktibuhu kutuban dafa wax ne min xayri ma marra lu dul benn yoon sax min xayri an an yabfula lahu thaman daawu ko jox njox njëkk danaan ko ahmadu bëgg naa nangam mu dem xool na mu ko bëggee mu indil ko ko kon loolu liggéey bu rëy la bari na téere yoo xam ne Serigne Touba defaraat na ko ba mbokk yi ñëpp di ci mën a jariñu loolu loxoom sëñ Mandumbe mi ngi ci biir daare kaamil bi njëkk am gis nga ne kon bokkate ba tey loxoom mu ngi ci biir ci Touba kon amoon na liggéey bu yaatu bokk na ci ay liggéeyam mooy ab taxawaay boo xam ne amoon na ko ci wàllu xam-xam ci wàllu njàng loolu moo tax ku bokk ci moom war ngaa yittewoo xam war ngaa yittewoo diine war ngaa yittewoo jàng war ngaa liggéey ba tey bokk na ci liggéeyu Cheikh Mandoumbe mooy ku amoon ab taxawaay la bu rafet ràññiku ci liggéeyu jumaay njaareem jumaay njaareem moom sax bokkoon na ci ñuy jiitu woon liggéey ba moom ak sëriñ Issa Jenn ak sëñ Balla Faali Jang moo tax sëñ Musaa Ka di wax ne ci wolofal bi mu def sëñ Balla Faali dafay wax ne sëriñ Issa ko jëwriñu moo di saadix wa Cheikh Ahmadou Ndumbe dolli ca Balla Faali kon taxawaay bi moom noonu la ca amoon wax nañu ne téeméeri junni la ca sasoo keroog ci jamono jooju ci téeméeri junni ci jamono jooja ca la sasoo te yàqulu ko la mu doon yóbbu addi yóbbu addi ci sëñ Tuubaa yàqulu ko ca warteef yi mu ko war ca diggantee ak mbindeef yi moo tax sëñ Musaa na ne téeméer jumaa ji ngir ba ñuy sasoo téeméeri junni la sasoo te mus la yàq lam fasoo ku weddi laajal sëriñ Isaa xanaa te tubaab yi am nay jamono ñu def seeni pexe ngir bëgg a gàllankoor liggéeyu jumaay jumaay njaareem fexe ba jël palaan ba palaan ba yóbbu ko Cheikh Ahmadou Ndoumbé sëñ Balla Faali ñoo def seeni pexe di dem di ñëw di lijjanti ba jëliwaat palaan ba indi jébbal ko Sëriñ Tuubaa liggéey bi soog a wéy loolu sëñ Moussa Ka mi wax naan keroog ba gouvernement ba ñëwee fa Jurbel di laajte palaan ba daal di koy yóbbaale sëriñ Balla ne Cheikh du Ndoumbé nan dem ba àgg ndakaaru baa ndar baanu laale keroog la ñu dem ndakaar di seeg borom ndar mu delloo loon palang bu ñu ñëw di yaale mooy ñëw jëybal ko Serigne Touba kon gis nga liggéey bu rëy boobu nga xam ne am na ko ci jumaay njaareem mooy yëkkati alalam bi joxe boole ci ak di soññ war nañu carnet ba nga xam ne sax ñu santul Mbàkke ci lañ daan bind moom moo yoroon carnet booba boole ci ak nag taxawaay bu rafet yi nga xam ne taxaw na ko naka noonu tamit ku am taxawaay la bu rafet ci liggéeyu jumaay Tuubaa ji jumaay Tuubaa ji kenn ku ne xam na ne ba ñu koy liggéey booba moo dëndee gii mbay mu baree bari alal ju baree bare bari jóge na fi dugg ci jumaay Tuubaa ja li ko dale ci sëriñ Madu ba ci ak njabootam ba léegi nii moo tax sëñ Musaa nee na ko jébbal na mbay ma Mustafaa walla yafal bi man jafa moo sopp bàyyi Moustapha ma annabi Shafi jumaa ji wax nañ ne keroog ba ñu gasee ba mu dugg ci biir fondement ba daa wax sëñ mu ko jumaa ci kaw baa ma nummee ci suuf taxaw ci taxawin wu yéeme xam ne ne wàllu ndox dana gàllankoor liggéey bi te booba ndox jafe na taw bi bu masaa taw ñuy dem ci dégg ba di indi bu jeexee nu ñuy def liggéey bi taxaw mu ne liggéey bi Sëñ Tuubaa wut taxaw ci la wut ay seetar ne ay mbànd yu mag yu weñ indi ko ngir liggéey bi ñu ciy duy ndox di liggéey ci déeg bi di liggéey ci taw bi bu demee ba jeex ñu jël seetar yooyu di liggéey ngir liggéey bi bañ a taxaw loolu amoon na ko ci liggéey jumaa njaari moo tax keroog taxawaayam ci Cheikh Mouhamadul Moustapha keroog ba ñu tegee xeeru la ba tey sëñ Mouhamadul Amin Diop Dagana moo koy nettali nee na ba ñu tegee xeeru jumaay Tuubaa ba noppi mbooloo mi murid yi bég lool ñii di tagg wayu olof wayi arab coow li bari lool di tagg Seex Muhammadul Mustafa liggéey bi ñëpp rafetlu ko ngir yitteem juré yi mu taxaw ba li am nee na is aqbala Cheikh Ahmadou Ndoumbé ci noonu rek ñu seen jëmm ju ñëw ñu ne seex ma Ndoumbé la wa aqbala mu muriduna alay nee na taalibe yëpp mel na dañ leen wëlbatiku leen ñëpp wëlbatiku jàkkaarloog sëñ ma Ndoumbé nee na ñi di ko tagg di ko tagg di ko kañ di ko kañ ba wax ji baree ba bare mu ne leen inni ahmadullaha aleykum wa ala haatihi aljamaa man maa war sant yàlla man mii maay sant yàlla ci liggéey bi man mii maay sant yàlla ci yéen li anni ara anna haatihi alxidmata kaanat alay waxdi man kat gis naa liggéey bii ak mboolem liggéeyu sëñ Tuubaa man rek la war ku ñëw da nga maa jàppale waaye man rek maa ko war a liggéey kon moom gis-gis boobu la amoon ci liggéeyu sëñ Tuubaa kon taxawtu sëñ ma duma gépp ci lañ dox waaye comme dañoo nekk ci sëriñ ma li ñu ci dese bokk na ci ab liggéeyam mooy ñeme addiya ñeme addiya lool te ñeme wërteef moo tax sëñ Mor Kayra wala bokk sëriñ Mor Talla maam Cheikh Ibra ba muy tagg sëriñ Mouhamadul Moustapha al Karim di wane jikkoom yu rëy yu tedd ya yi mu nuroog njabootu sëñ Touba yi yi mu nuroog taalibey sëriñ tubaay yu mag yi nee na ba mu àggee ci Cheikh Moundou mi dana ko. ñeme addi yaag wërteef loo am joxub sëriñ nga nuroog sa baay ahmadu ndumbe mbàmba ñeme addi ya ñeme wërteef loolu mooy jikko yi nga jël ci seex ma ndumbe ñeme addi ya moo taxoon li ñuy wax am mbayam lu mu bari bari muy gerte ga muy dugub ga ni ma ko waxee woon daawu ci mus ak njabootam daawu ci mus lépp da koy jëbal sëriñ Tuubaa loolu moo taxoon mu utoon fanweeri giléem yu teg te seen liggéey du dara lu muy yanu addiye ji sëf addiye ji di yóbbu Serigne Touba ak Serigne Touba man nekk gànnaar ci yéen ba ci njaareem mës ta dakk te loolu nag yàqulu ko dara ci li ko waroon ci digganteem ak nit ñi lu mu am joxe ko ku ñëw mu teral la ku buumu gàcce nar a yeew boo ñëwee mu daggal la buum ga ku amuk jaaxle boo ñëwee mu dindi la sag jaaxle kenn mësu koo tawat mbir lu muy dala koo fajal te yàlla rekk a tax lu mbir rëy rëy mu yëkkati ko joxe ko li mu joxe ci ay fas naari góor te booba naari góor yombut kenn mësu koo lim moo tax sëñ Musaa Ka nee na ko ñi may ci réew mii naari diggante penkoo kajoor baa doole baata doom buur mënee su koo lim jafe na may na ma yetti fasi naar may ma tukkal gu suuf ba dër sëriñ Mamar jënd ko ñaar ku weddi laajal mbampana may ma fa kër ma xari njaay sàppum njuróom maa ko fa jaay may na ma jaam bu naan njaay ma njaay bayti la dem liberté na billaahi moo ma njëkk may téeméer te jënd ko way te dub liggéey ba mu dima fay sàqum njëriñ ma fëgg na sëriñ Ibra Xujj mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mandumbe bi ci kaw suuf tey jii mas naa dégg muy nettali ne ku ñuy wax góor gi ma tabara nettali ne ko ne ko ba sëriñ Tuubaa wax sëñ Mandumbe ne ko demal Tuubaa ma fekk la fa nga xaar ma fa te nga seetalal ma dëkk ba te xaar ma fa ma fekk la fa wax na ne diggante ba ay weer yu néew la waaye sëñ ma tabar nee na sëñ ma nummee mayee na fa lu toll ak juróom-ñaar fukki fas ak juróom yoo xam ne ni da ko ñëwal yépp mu joxawaat ko ak jëmmi ku ñeme woon war téef woon joxe addiya la woon tamit joxe boppam ngir sëriñ Tuubaa bokk na ci ay taxawaayam ak i liggéeyam bis ba nga xam ne Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim jiite na liggéey bi sëriñ tubaa Xaadimu Rasuul ñibbisi ji dëkkam bu tedd bi muy bis bu rëy bis bu tiis bis bu mett bis boo xam ne day mel ne keroog ba ku tedd ki rasulullahi sallallahu alayhi wa ñu xëy ne nekkatul ci kaw suuf nga fekk jàmbaar yu rëy yoo xam ne seenu ngëm dëgër lool waaye ñu tàmbali amul jaaxle ku ci mel ne Aboubacar jàmbaar ku ci mel ne Seydina Omar jàmbaar ju rëy ju tedd jooja ku ci mel ne Seydina Ousmane ku ci mel ne Seydina Ali waaye booba Abu Bakar moo leen doon dalal waaye keroog ba ku tedd ki ñibbisee ci dëkkam bu tedd bi ci Touba booba ñu bari amul jaaxle ñu naan moom sëñ du bokk na ci njëkk ñëw jaayanteeg Seex Muhammadul Mustafa loolu tamit dama cee bëgg indi rek lu tuuti li ci sëñ Muhammadul Amin Diop Dagana wax dafa wax ne lamma naama shayxu wa qaamat qiyaamatu ahli dunya bi fi sëriñ bi bàyyi ko falam yabqa illa mutaraddidun fi amrihi aw shakkun wa dafa yaqiinu muqinin nee na booba ñu bari déng déng jàpp na ñenn ñi sikki sàkk jàpp na ñenn ñi waaye nañu xam ne loolu nag ci waxin la ndax booba sikki sàkk yaafus taxut a sikki sàkk kañ ñàkk moo rëy jëmm ju rëy ju tedd ju baax jooju nga xam ne moom lan lan jàkkaar loolu mm-hmm. aajo joo ko wax mu fajal la ko xar kanam ba leer dàq lépp ñu mu gënaloo leen lépp tey jëmm jooju nee na nekkatul ci kaw suuf ci saaxeer kooku mën naa jaaxal ku ne mën naa tax kenn ku nekk jaaxle nee na ci booba sëñ Mouhamadou ni me talaqal mihnata bi qalbin jariin xew-xew bu rëy bu mette booba nee na dékk na ko ci xol bu dëgër xol bu am fit xol bu ñeme wa baayaa al xalifata awala wahlatin mu dem jaayanteeg sëñ Mouhamadul Moustapha ci tàmbali ci sansa mu baayaatal mubtadi jaayanteeg kuy soog a tàmbali allasi lam yaxdum xëttu jaayante koo xam daa mel ne defagul dara falam yara li nafsihi li ma taqaddama martabatan ma nee na li jiitu li mu liggéey li muy rëy rëy gisulul boppam benn dara ji jàpp na ne amagul dara bal xalafa bi rabbihi ala annahu yaxdumu alxalifa bi adaafi ma kaana yaxdimu walida nee na daa giñ ci yàlla ne lu ma liggéeyaloon sa waajur wa danaa la ko liggéeyal tey jii nee na nag fa barra ngi ñam la de def na ko lu mu liggéeyaloon Sëriñ Tuubaa rek liggéeyal na ko Cheikh Mouhamadul Moustapha ci taxawaay moo tax sëñ Musaa Ka nee na ko jëwriñu saadix ba ca saam wa huwa saaxibul maqaam déefu ko jot yowmal qiyaam ahmadu numbel baaleex jébbal na mbay ma Moustapha walam yafal bi man jafa moo sopp bàyyi Moustapha ma annabi shafi sëñ Moodu Kayra di wax ci sëñ Moor Kayra waykat bu mag boobu di wax taxawaayam ci liggéey jumaa ji mu naan sëñ Moodu numbee ngi teew di bañ ko ragal mës la janoog seex mu wax ko ngir tamatu gëm na magam teew gi ak ginnaawam a yam faf na lu seex digle woon da koy rafetal lu yéeme lu jafe nee na gëm na sëñ tubaa te teewuk sëriñ tubaa ak ñàkk teewam la yamane lu sëriñ tubaa digle woon day mat sëkk dara du ci des loolu la tax moo yéene wuuf na ginnaaw seex goneem yi wattu na leen boole na leen tedd ngaam ji xele na dal mooy ku amoon barke ku amoon tedd nga waaye lépp delloo waan na ko ci njabootu sëriñ tubaa desalu ca dara moo tax suñ Muhammad mi mi ngi wax ne fala yubqi shay'an li iyaalihi daawul desal dara ngir ak njabootam min zar'i wa fidd moo xam mbay ma la wala alal du ko ñëwal di xaalis dara daawu ko bàyyil njabootam bal yabsulul kulla lil xalif lépp da ko daan jox sëñ sëñ Muhammad bin Mustafa daan ne waxu fi lxaqiqati aktharu lkubaraai ictinaan bilxalifati wa bi iyaali cheikh kon taxawaay bu réy bu mag bii moom la Cheikh Mandumbe amoon ci keppaaruk sëriñ Touba lenn lenn lañ ci tudd rek ci 1933 nag ci la tànn ñëw ci dëkk bii di Dendey ba mu amee lu mu yëg xam ne moom kat ma ngay dem di jàkkaarloo jeg Serigne Touba ab liggéeyam mat na mu ñëw ngir wàcc fii liggéey wax nañu ne booba yónnee na woolu sëñ Mudu Xabbaan sëñ Ibra fekk ko foon waaye yónnee wu ne ba ñëw mu ne leen liggéey baa ngi noonu maa ngi dem waaye bu leen ma fekkee ci kanamu Sëriñ Tuubaa da ngeen xam ne duma ab yaafus bàyyi leen liggéey bi loola kañ la woon mi ngi doonoon bisub àllarba ci 1933 le 8 février 1933 bis bi tegoon tànkam di Cheikh Manoumbe fa la ko teg dara wàññikoo ci yokk rek di liggéey liggéey yu rëy li mu bañ a dégg daal mooy sëñ bi lii rafet na waaye yaa ko fi am foo ko waxe ak lu loola rëy rek nee na dajjal yu sëriñ Tuubaa lii man sëñ Tuubaa yeyoo yaa ko fi am moom rokk ko fi am maam xaban tamit nee na ma am na bis ku ñu wax daam bi te yónnee ko benn mbàjj bu rafet bu noo bu rafet mu ñëw di ko xool di noo ba mu ne lii mu xaban ni yëllewu ko lii sëriñ Fallou ko yow sëñ Tuubaa rek ko ko yelloo yët ko sëriñ fii nii am na fi wax nañu ma oto bu rafet bu yéene ci jamono boobu day mel ne bariwut mu fonkoon ko lool ba nga xam ne wax nañu ne dañ ko daan baasal fii ngir di ko gàdduloo kenn bañ ko fa kenn bañ koo laal ba amee ku ñëw di waxtaan ba ne ko ah sëriñ bi de sa oto bi moom yow dong ko fi am mu mel ne dafa tàggoog sagoom woo sa góor nañu ko yor sëñ Abdou Lahad sëñ moom dong yayoo ne moom dong ko fi am dend ko yër Dakar jënd na fa kër yëkkati ko jox ko Cheikh Mouhamadul Fadil ne ko mbakki xajoo fenn yow ñëpp dañ laa war a fekk si waroo fekk kenn jëlaat na fa kër joxe ci Colobane boo demee ci wetu kër Sëñ Bachirou bi kër googu moo ko defoon addiyee Sëñ Tubaa ginnaaw ba lañ ko jaayaat defaat ko ci liggéeyu Sëñ Tubaa muy ñaari kër magasin bii ngeen di gis mu rëy lool ñu bari mën nañoo bay indi ba ci tund wi te du tax mu fees sëñ xaban duy na ko ba mu fees dell ak gerte sëñ fàllu ñëw mu jox ko ko lépp sëñ fàllu na ko yokk ko yokk rek mu yokk ko bu ñu demee da ngeen gis yokk ba ba ca déwén sax dañ koo duy ba mu fees ba ci bit mu joxaat lépp Cheikh Mouhamadou Fadi doxin woowu la doon dox moom sëñ a Xaban wa rahmatullahi taala bi ne ne képp ku fi teew noo ngi lay nuyu ngi lay siyaare noo ngi lay noo ngi lay sant. nee na di jiital ci nuyoo bi ñi nga xamante si nii ñoo bàyyi ko Touba ñëw fii tam euh, yore liggéey bi. di wax ne mënoon na ñoo ñàkk wax. di wax ni sëriñ bi nee na mënoon naa ñàkk a wax. ndax li ma ta wax lépp. ndax nee na li ma a wax lépp. ñi jiitu wax nañ ko. ñi jiitu wax nañ ko. wax nag du jeex day sës. nee na wax nag du jeex day sës. da jotaay bi yàgg na. nee na jotaay bi yàgg na. war nañu am fu jaarewaat ci biir kër gi seet fu si mën mi wàccee liggéey. nee na ndax dañoo war a jaarewaat ci biir kër gi seet fa nga xam ni fa la Cheikh Ahmadou Ndoumbé Mbacke wàcce woon ab liggéey. suñu fi jógee dañoo war a jaaraat sàmm. nee na suñu fi bàyyi ko ne dañoo war a jaar jaaraat sàmm. waaye li may dolli ci wax ji moo nee na waaye li muy wax ji rek moo di. suñu mën bi ab liggéeyam lépp. nee na Cheikh Ahmadou Ndoumbé ab liggéeyam lépp. da koo yemalewut ci sëriñ Touba rek. nee na da koo yemalewut ci sëriñ Touba rek. ndax bi ko sëriñ bi gërëmee. ndax bi ko sëriñ Touba gërëmee.